ñaari bés yëpp euh, liggéey nañu indi nañ fi ay borom xam-xam yoo xamante ni si ñëw nañu waxtaan ku ci nekk ci spécialité bi nga xam ne moom nga nekk donc ku ci nekk bi nga ñëwee def nga li nga xam ni mooy benn synthèse tënk ci li nga xam ni mooy say say problème li ngay dund ak nan lañ koy solutionné donc ci loolu bi ñaari fan yëpp jeexee euh, mu tolloon ci fukk ak ñeent session bi ñu paree lépp dañ ko tënk ci li ñu tuddee euh, déclaration de Dakar déclaration de Dakar boobu xamni fim fi mu maladie yi nga xamni do walé tan te dina ko maladie non transmissible amna daya bu mu am ci ci Afrique rawatina ci Sénégal légui naka la def pour mën leena jappalé parce que fièvre fièvre yoy ñu naan maladie non transmissible ko bu baax waye tamit ñu gën ko jox gëdd donc ci lolu wax nañu ci ci ci ci naka le le, la décideurs yi manam ñi nga xamanteni ci ñoy ñoy ñoy ñoy ñoy ñooy ñooy ay ay ko par financement wara def ci lolu wax nañ tamit ci ñi nga xamante ni si moom la ñu war a former euh, étudiants yi wax nañ tamit ci ni nga xamante ni si moom la ñu war secteur yépp ndax euh, prise en charge dafa wara a nekk prise en charge bu global donc secteur bu ci nekk daal di àndandoo ñu daal di ñu daal di booleendoo seeni doole ngir mëna xex xeex euh, xeetu tawat yooyu. waaw xam nga loolu ci lu jëm ci donc dafa bokk ci euh, ci présentation yi sax ñi nga ay association jëm Sénégal wala ci Afrique tamit ak ci yeneen i tawat tamit waaye bu ci nekk boo ñëwee indi li nga sa problème dañuy dañuy daal di joxe ne ah lii de jàpp naa ne lii ak lii bi nga ko defee solution dina am te loolu bokk na ci financement bi nga xamante ni si wax nañ ci te ñuy wax ni financement bi surtout lu jëm ci wàllum prévention maanaam moytu lii dal la wala nga ne prévention secondaire maanaam lii dal na la waaye bëggoo mu yokk maanaam yegg ci ay complications donc ci loolu euh, wax nañu ci am na benn ci panélistes yi nga xam ne ci wàllum moom économie de la santé lay yëngu wax na ni moins de 1 pour cent moom la ñu jagleel li ñu prévention ci feebar du dul wàlle donc lolu pour ñun problème la donc il faut que ñu waxtanat suñu bir ngir lolu ñu yokk ko ba tax nit ñi kat nga xam ne dañuy am feebar nga xamanteni du walé ñu mën leen di euh, jappalé ci lépp lo xamanteni seen wér yaram né recherche mom daanaka li limu limu mu li mu dafa bari donc ci lolu euh mom bokk na ci sax li ñi nga xam ci déclaration bi la moy formé nga xam ay étudiants lañ ci teel a début ci teel ñu teel a xam luy recherche teel ci yëngu muy mën leen a yóbbu ba ñu dem ba foo xamante ni si kat dinañ xam ne lii ak lii boo ko boolee war a mën a war a mën a war a mën a euh, faj maanaam li ñu naan recherche translationnelle nga xamante ni euh, nit ki day mën di def recherche waaye tamit di nekk hôpital muy day boole ñaar yooyu ñaar yooyu lu muy boole moo koy mën a permettre tey jii muy mën a xam feebar bi naka lay doxee ak nan naka la koy saafara.